lañu oh. kay waa Bambey 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant wax dëgg yàlla di leen gërëm ci teewaayu bis bi bis bi nag li ko waral mooy mbooloo mu àndoo sopp ñu ci xaside yi ñu maase ànd ak ñoom taxawal bis def ko bis Cheikh Mouhamadul Moustapha di ci ñaanal way dawlu yi fu sëñ amatuma fa daraja amatuma fa kàddu amatuma fa lenn lu muy bëgg lu doon doon fa ab taalibe rek man noonu laa dund ci yoon wi ndax ab taalibe moom la Cheikh Balla Fall yi waxoon mel na mag rek wàññi leen daraja adduna yi ngeen di sàkk te wuti ab taalibe lan barke mooy lan mu ne mm, mag mi ne teg mu ne ko barke mooy ak taalibe mu ne ku am barke ku am ak bi am barke ne ne ne teg ci mag moom ne ko xam nga luy bakkana ah? mu ne ko déedéet des naa koo xam de mu ne ko xam nga bànneex ak bakkan lu leen wutale bànneex ak bakkan mu ne ko bakkan moo lay topp moo lay tee topp yàlla bànneex moo lay mooy yàlla waaye ak taali bi ku ko am doo mooy yàlla doo topp bànneex man taali bi Sëñ Tuubaa laa doon doon ci sëriñ bi ci yoonu murit mànd dal déglu ko ci débat bi ba mu noppi ma tey cib loxoom ni ko ko baax mu ne ah ma ni ko sëriñ tuubaa mii ngay attaqué ci yoo ci yoonam mu yoonu murit te ngaa dem nga gëstu ji ko dal ni ko boo bëggee atte sëriñ Touba ci mel noonu naa Mbacké mii nga xam ne moo nekk cité Damel di def naka su dul noonu da nga juum dal ni ko lislaam ngay woote charia boo demee sa kër ci sa njaboot am na ca koo xam ne la muy def dëpp wut ak lislaam waaye doo ko atte ci lislaam da ngay xam ne moo dëng waaye lislaam dëngut mu ne tekk di ma déglu ma ne ko kon bul gis benn waaye bu mel ni naa Mbàkke ci dëngam ak la muy def nga bëgg koo àtte ci Serigne Touba demal nga gëstu kan mooy Serigne Touba ak lan mooy mbindam bokkaale yàlla gi ñuy wax Serigne Touba mësta bokkaale yàlla ak dara mësta am Serigne Touba mësta bokkaale yàlla ak dara fu mu mas nekk wéetal yàlla la fa nekkee ak julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam di ko liggéeyal ba am li man ba am li mu am kon jamono jii ñu toll nañu gëstu bu baax mbindum sëriñ bi gëstu bu baax njàngaleem sëriñ Tuuba gëstu bu baaxit it sëriñ Tuuba ni mu daan dundee ci doylu ak ci ragal yàlla ak ci wegu ak ci fegu xam nga sëriñ bi bi muy sos yoon wi nga xam ni ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor guddik ajjuma mu xëy moom sëriñ Touba woo mboolem ñi nekkoon ci daara ji ci Mbàkke Kajoor xamal leen ni leen képp ku jàng alxuraan képp képp képp képp woon bis ni ki tey mën nga ñëw ñu tàggoob yóbbal nga dem jàngi faneen waaye képp koo xam ne lii ma andi doy na la nga toog ma def ci yow ngërëmal yàlla ndax saa boroom moo ma digal ni ma naa soppi samaw doxalin ci beneen ci beneen méto samaw yar sama yar naa ko soppi ci beneen méto léegi damay jàngale alxuraan ak damay damay damay damay damay damay yar yëggale nit ki ci yàlla dal ciy teg nag engagement bu wér moom Sëñ Tuubaa dal ni képp koo xam ni aju nga ci man aju nga ci man danga mucc àdduna danga mucc àllaaxira moo ko waxal boppam dogalam kenn du dindi ndogalam ajjana ak topp ca jëm sawara ak moye jëm yaari barab yi boo jëm dala di soobu am ngiram moo tax suñ bay jaxte ñëw ne suñ bamba li may bëgg a dee yàlla nag duy dërëm du ay soxna duy fas ta duy taaxi kaw du luy ràppakay tas du luy deeka dee du lëf lenn sax far lu dul am la yow te yow bamba mi laa di wax yow ki gën ku dee fii siyaaree ka mokkoo ko naw lu dul am la am laa ko gën maa ko wax ku lu dul ndaw sa ndaw saa raw ku for ndaw sa doyloo ko doo gis ku for ndax am ndaw sa dee tey furaatoo ku ndaw ku dikkoon ci as ndaw mu jox koy cëram te ceebal ko laaxal ko laaxub karaw tëri jot mu tëdd ak moroomam faram ba koo kii cëram kon na wax wóoy ca kaw ku for lëf lu dul ndaw sa ay nax la for lu dul ndaw sa nax la te duy nax yu ndaw ka way gërëm loo lu dul jël bu wér yëgal yow far woowa moo gën di ndaw ndaxam far wu bon sax du jël ndaw sa gën ca ndaw sii ma gis ak ceenam dootu sew la muy bëgg yombul la muy wut sewut ka jël bu sàgganee tuuti bu siwee nelaw koo koy sëñ Bamba ma wàccee sama kàddu nag ci li nga sàkk woon te xajul ci jataay bi suñ mbàkke muy sëriñ Touba ak alxuraan waaye jàppal ni sëñ Touba yi alxuraan alxuraan ay sëñ Touba akrim bi dalikal kitaab fihi hudahu wa sawaab fihi l kitaabu wal jawaab min rabbina dil qidami huwa shifa min kulli daa liman alayhi atamada wa man abaahu turida daa xasratin wa nadami wa kullu shaqsin alxada fiihi wa lam yajtahida bi tawbatin laa qarrada min rabbihi almuntaxibi wa huwa alladi man ihtada bi hadiyihi naala huda wa yaxtawi alfawza gada daa asmatin min nixami wa huwa kitaabuhu almubin jaa bihi nadbu alamin bi isni rabbi alaalamin hudan li xaawi alaqwami wa huwa alladi man adbara anhu wa ma tadabbara fihi asa rabbul wara uduxukatan lilluwami wa huwa allazi man sabata fihi walam yaltafita za amalin yakun fata inda shakuril akrami wa huwa allazi man iktafa bihi tawa ma xat kafa wala yulaaxi kulla fa dawil aza bil karami ahmadu rabbi ala kitaabihi allazi ala kullu kitaabin nuzila bi kalkali wa bil fami ashkuru rabbi al azim ala kitaabihi al hakim wa fustu fihi bi ulum tufhimu da talafum kitaabu rabbi al kitaab bi nasi dalika alkitab bihi usimtu min atab wa jalibati chaqami huwa qalilun wa habib lii mu wax ne yéen an lii an tabib bihi yuhibu nii labib yatlubu xayra laxami ne min alxaqi jaa alxaqu lilxaqi fi saabi bi xaqin mubinin laa yuaanihi min saabi kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa oxra min alkarbi rajawna min almawla bihi xayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalbi laxad saara kanzan baaqiyan izzatan lana yaqina bihi lmawla ada kulla zidabi kitaabuka diini wa huwa qilli wa muunisi hadaani bihi lhaadi wa nafsi bihi zakka kitaabun karimun min karimin mukarramin kufiitu bihi ladaa wa zanba wa shirka qiraatuha kanzi wa jaahi wa izzati uniltu biha kawni ladallahi da sidqi sëñ Tuubaa fonkoon na waa alxuraan ba bu masaane yónni nit sax muy daw bu dee ko mokkal alxuraan dana ko doxal li nga yenu dafa diis daan na defit bu nit xasee mokkal alxuraan bu ne gone la mu ni ci mag ñi la bokk ci lislaam dagan na sax ay néewi jullit faatu ñu boole leen ci genn kàmb pax gas leen suul ça dépend ci circonstance ba waaye bu amee dañoo wax ne nañ xool ki gën a mokkal alxuraan wala ki ëpp lu mu ci mokkal ñu jiital ko diisaayam dina leen attat ñoom ñëpp hadisul xursi bi dafa wax ne ahlul qur'ani hum ahlullahi wa xasatuhu sun borom nee na sama waa kër man mooy waa alquran ñoom laa jàppee waa kër amin mboolem lu baax yàlla jox na ko sëriñ bi moo tax mu ma sa ma sàmba ma Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko payoor yi yàlla jox na ma ko <laughs> payoor yi maanaam ku jëfati dara ba sun borom war laa fay ak koo mën a doon sëñ Tuubaa nee na maa lay fay maa yor sa pay moo tax mu ne ku nu yaakaar sa yaakaar du tas bu ëllëgee Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko ku ma yaakaar sa yaakaar du tas xam nga lu nu ko maye mu ne ko déedéet mu ne ko bu ëllëgee man rek a jàkkaarloog saa borom ni ko moo tax sëñ Tuubaa nee na ay ahmadu lii num la dalee ak lu tax nga def ko nee na mësta am sama diggante saa borom yàlla mosumaa yedd dal ne ko Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko kudul man mas ngaa def loola laa di waree sëñ Bay Jaxate ni ko yaa set weles mosulaa dox sax fu taq lu bon seetal ma ngir yàlla man mi taq bay tuubi defoo lu bon mësulaa def benn buur bis lu warul te waa judul yow defoon nas lëf lu muy tuubi ku du sëñ Tuubaa bokk nga yàlla ak dara dam def sëñ Tuubaa moo tax mu ni boo léegi man rek may sañ a saa borom ni ko loo ma sa digle def naa ko loo ma sa tere mosuma caa jaar ni ko boo léegi nag ku ma yaakaar duñ la àtte ci sa jëf ci sama jëmm lañ lay àtte alhamdulilahi rabbil alamin ndokk way bu xat mu feexal te daana seexal bay seexal sa duggi ji waaye woomal amul ji réew amul ji réew Ah!